asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yéen ñi seet safoo di seetaan seen site internet murit point info maa ngi leen di nuyu te di leen siyaar te ñaan sama kàddu mu fekk leen si jaam comme niñ leen ko waxee woon ci seen émission yoonu ndaw tey nag di seen premier numéro ànd ci ak suñu gan bu am solo di boroom xam-xam di kàngam tamit si li mu nekk jiite école bu mag tamit fii si Touba ñu di ko wax suñu Amsatu Jaxate bala may xuus si waxtaan bi dama koy baye mu nuyo ak telespectateur mu nuyo point info jere jeuf soxna assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi setan mbokki julit yi mbokki taalibe yi leen di nuyo te di leen ziara di am mbekté di andak soxna ci ci waxtaan comme ni ko wax assalamu alaykum jere jeuf seigne am sax kàddu yi leer na te solo ñu gis tamit leg legi dañuy deg si nit ñi ñu naan. xale yi dañ leen war di yóbbu si daara yi alxuraan jiitu ci seen dënn ba pare ñu soog a dem si école nasaraan yi la loolu nan nga koy jàngi en tant que euh, directeur école France. ànd ci bu wér d' abord man yoo xam yow doomi daara laa xëy na yàlla def euh, mu jiite école bu ñu jàngale mbindum càmmoñ waaye doomi daara la euh, parce que def na vingt ans ci daara ci diggante jàng ak jàngale. 11 ans yoo xam ne nii dama doon jàng alquran xam-xam ak 10 ans yoo xam ne dama ko doon jàngale yoroon ay donga mm, ca tubaab Belel dëkkub Sëñ Abdou Lahat sama daaray bàyyi donc ab sëriñ daara laa njëkk a doon école it moom mm, xëy na du ñàkk nga xam ci dara moom soxna si nga xam ne si moo ko ubbi école bi sama wayjur moo ma moo ma jox ndigalul ñëw yor ko euh, loolu la ma jiite école bi euh, donc dama ciy ànd waaye même bu ma jëwatoon ci daara yi en tant que jullit war a damay xam ni doomi jullit moom alxuraan moo war a jiitu ci dënnam xam-xami adduna yi euh, ak diine yi ñoo war a jiitu ci dënnam euh, ndax loolu muy base bi nga xam ne boo xas yàlla taayu ci moom feneen fu mu mën a demati dara du ko mën a soppi dara du ko mën a teeloon nam doon bu demoon ci ay naar jaxasoo ñoom jël fa xam-xam bu ko ba mu soxla ci wàll xam-xam yi diine du tax mu jaawalee lislaam ak naar nga xam ne xam-xam lislaam yoo lay jël Euh, bàyyi leen seenu naar su dee dafa dem ci tubaab yi aussi lu mu fa yàgg-yàgg du tax mu ràññale mu xàjjale xam-xam yi adduna yeeg seen avancement bi ñu amee euh, ak la di ak tubaab euh, ak la di ak tubaab man mi wax yow def na Europe fukki at yoo xam ne dama daan dugg ci baar yi di dem fi tubaab yi dem te du ma am benn complexe takk sama maxtum wala baylar comme ni may ni may solee yére tubaab ci ñoom léeg-léeg it mari ma dugg ci baar sol solu Baay Laat wala sëñ Chouaïbou wala turki njariñ teg sama morto mak ñi may daan àndal di naan café tubaab yi di carte ñun ñun ñuy jàng suñuy xasida wala suñu tool ah, jukki alxuraan di di naan di café donc damaa bëgg wax ne yarub diine bu jiitoo ci yow yarub éducation de base bi foo mën dem loola du la soppi yow yaa fay jéem a soppee mais du la soppi euh, donc damay ànd ci ne loolu en tant que doomu jullit loolu moo war a ci doomi julit mooy ñu jàngal ko alquran na si risque damay jëlee ne mën a résister gi waaye fexe ba mu xam nu mu tane ndax doomu julit moom faaw mu ëllëg jamono koy xaar dana bu nee mu kàllaf ñu togg koy jëf daa war di euh, jullee di def euh, farata yi ko lislaam teg loolu bu fekkee jàng ko ba xam ko euh, gàllankoor bu rëy rëy rëy lay doon lay doon donc ci alxuraan jiitu gi la loolu mooy loolu moom en tant que obligation daa war am mais avantage bi ci amaat mooy alxuraan day kiis day tiis bu comme jiitu sab dënn pour nga mo mokkal leneen pour nga jàpp ko day yomb yàlla day da ciy jaare ubbi sab dënn eh, te loolu ñun am nañ ci ay firnde yu wér ci gone yi yéen fii ñi nga xam ne dañoo jaar ci daara eh, résultat yi ñuy def moyens yi ñu am par rapport ak ñi nga xam ne eh, dañoo màgg rek ñu dugal ci école mbindum càmmoñ donc loolu aussi beneen avantage la effectivement kon damay wax ni loolu moo war a jiitu moom daa jaadu moom day farata ci ab doomi jullit ñu jàngal ko diineem ba pare leneen lu ñu koy jàngal doo ko jàng d'autant plus ko léegi mën naa nekk parce que Sénégal système bi ñuy jàngalee mën naa ne ay système yu baree bari la système traditionnel bi mooy bi état bi doxal euh, ak ay école mais système yu bari yoo xam nit ki bu bëggee jàng mën a jàng yàlla système franco arabe euh, yàlla système franco islamique yàlla système traditionnel léegi franco islamique bi wala franco arabe bi Euh, yàlla euh, internat yi aussi ak daara moderne yi yooyu yëpp ay offre la yoo xam ne ci wàllu éducation koo xam ne nii bëgg nga sa doom euh, alxuraan kese kese jiitu ci am na offre bu buy régler loolu dee da ngaa bëgg muy boole alxuraan mbindum càmmoñ am na bu dee arab aussi loolu am na donc offre yi moom manqué Euh, léegi nag mu ngi def ci choix wu parents yi parce que da ngay gis yoo xam ne ñoom ils préfèrent yóbbu seen doom ci daara ji ba mu mokkal wala ba mu wàcc ñu doog koo dugal euh, école mbindum càmmoñ euh, ak ñoo xam ne dañuy nakalaat yi dañuy bëgg seen doom di jàng alxuraan waaye en même temps pour bu bañ a âgé lool muy mu ci boole njàngum càmmoñ loolu aussi am na école yu offre possibilité boobu lu mel ne daara moderne yi donc effectivement soxna si damay ànd ci ñuy wax loolu. que ni effectivement doomu jullit alxuraan ak xam-xam diine moo war a jiitu ci moom après lu muy jàng doo koo jàng. def sëñ am sax loolu leer na ba tey léegi nag dañuy gis tamit xale yi nga xamante ni dañuy teel a sëy ñu dagg seen jàngi teel leen a may ndaka nga gisee loolu xale yi ñoo bëgg a dem wala seen waajur yi tamit ñoo leen si kiyee ba ban phénomène boobu nan nga ko gisee yow nan nga koy jàngate métti na ma euh, métti na ma. yu baree bari yi ci nekk te je suis bien placé pour ma wax ko ndax dama ci am ay cas loolu nga wax noonu man dama ko dund fii ci sunu élèves yi euh, dina ma metti ndax euh, résultat yi soxna yi def jigéen ñi yi ñuy def ci njàng mi wane na ne ndeke góor ñi mënuñu leen wane na ne ndeke ku leen taxaw ni ñu taxawoo góor ñu ñu def li ñuy def li góor ñi def bu fekkente ne moom ci lislaam amul lenn benn ségrégation bu lislaam def ci diggante jàngal jigéen ak jàngal góor wala yar leen nga xam ne ni ñu war a yare góor jàngal ko former ko noonu la ñu war a defee jigéen lislaam amul boobu li firnde ji mooy xeeti farata yi teg góor yëpp la la teg jigéen julli par exemple ni mu ko tegee góor la ko tegee jigéen or pour nga mën a julli julli gu wér il faut nga xam atay il faut nga xam li ngay tari donk loolu rek war naa firndeel ni ni ñu war a jàngal góor la ñu ko war a jàngal mais boo ñëwee ci sëñ Tuubaa mi nga xam ne mooy sunu sëriñ moom da euh, ndax li mu doon njabootam gu góor gi moom la doon jàngale njaboot gu jigéen gi euh, bari lu ñuy nettali soxna May al Kubra nga xam ne moo njëkk bind ci njabootu sëriñ bi ci gu gu jigéen ab kaamil jébbal ko ko euh, loolu dama koy jox exemple rek mais ñu bari foofu la ñu jaar alors donc dañu war a jàngal jigéen ñi comme ni ñuy jàngale góor ñi d'autant plus que wax naa sànq ne seenu njàmbaar wane ne góor ñi mënuñu leen léegi nag euh, mu des lu tax ñoom seenu njàng di yàqu parce que dañuy sëy lenn li ci wayjur yi la lenn li ci ñoom la lenn li ci seeni borom kër euh, c'est une responsabilité partagée ci wayjur yi d'abord ndax euh, bu fekkente ne da koo bëgg a jàngal am loo bëgg ci moom war ngaa jël matuwaay yi nga xam ne manam loolu du gàllankooru bi ci njëkk mooy su fekkente ne vraiment dara urgent lu wara tax mu sey nekku fi manam ñu bàyyi ko mu mu àggale am jangam ba un certain niveau par exemple tey man dama ko fi toujours ma jigen mo ci ak jamono ji ñu mu lu gàtt gàtt na am bfm euh, léegi nag bu xasee am bfm nag lu diplôme bi gën a kawe gën a baax chance am gën a yokk mais bu mbay mu ko amul bfm ndax possibilité d'emploi ak perspective yi ne ci kanamam bfm lay tàmbalee. par exemple booy wut liggéey kenn du la laaj certificat BFM euh, jëm kaw wala niveau troisième alors léegi euh, donc parent yi ñoom ci bari ñoo koy dagg ndax ñooy jékki-jékki maye ko euh, ci lu leen kenn tegul pression léeg aussi peut-être ak sunu société ni mu bindoo nga xam ne surtout un milieu morit nga xam ne léeg-léeg sunu sëriñ si ñooy dogal ci biir kër yi nga jékki-jékki rek sëñ bi yónnee daal na sa doom jooju dama koy may diw nga xam ne yow yaa ñëpp a yëgandoo yooyu yëpp ay ay ay raison la yuy expliquer euh, le fait que xale yi seenu jàng di dagg ne léeg-léeg parent dana du ko bëgg waaye dana am yu tax léeg-léeg affaire mbokk bañ mbokk ñaaw yëf yëfaan yooyu danañ tax ñu teel a dagg ndax nit mën naa dégg doomi mbokkam ñëw ñaan si ko pour doomam ñu bañ koo gàntal tax ñu yooyu yëpp ay yu koy expliqué donc waajur yi am nañ ci responsabilité bu rëy xale yi aussi ñoom nday mbili gi jigéen ñi am nañ ci responsabilité ndax dinañ gisit benn waaye bëgganteeg moom euh, seeni waajur gàllankoor naa ne da ngeen di jàng bàggal ñoom ñu taxaw temm ci euh, topp si waaj yi nga xam ne te waaj yi day ay contrainte am yu tax peut-être mën na am moom daa bëgg a fas léegi indi soxnaam këram léegi xale bi bëgg koy ba tax mu jaral ko bàyyi am na ci jub kaa yu bare bari yoo xam ne ci jigéen ñi eh, lay jóge naa ciy faratoo sama xale yi fi mm, jigéen ñi leneen fi ne bu ñu toppee góor ñi mm, bu ñu leen di ngorosi mën nañ leen a ba dig leen jumaay Tuubaa te fekk na loolu bëgg ngeen ne waaw rek bu ngeen xasee ne waaw moom bañ ñu daal di génn seen tànk bukki dañuy xëy xëy daan ne sama soxna laa soxla boo àggee it goro yaag wujji peccor gaye ñoo la dul bàyyi ci nga jàngi ndax duñu la bàyyi moom yor kër ga yow ngay toog bon loolu ay réalité sénégalaise la réalité sociale la yu yuy waral xale yi aussi maanaam seenum jàng du yàqu beneen bi ci topp mooy borom kër yi parce que mën na maa comprendre parent bi pour ay raisons familiales sociales yu tax mun ta gàntu ba tax mu d'accord ci maye doomam njàng mi dagg mën na maa aussi comprendre xale bi xëy na daal bëgg waaye li mu bëgg bëggin bu seen njàng mi continue ñaari bi aussi peut-être mën naa am wéye ay ndigal ay kilifaam moo tax mun a waaw waaye ba seen njàng mi continue yooyu yëpp mën naa daje léegi nag kon bu boobaa borom kër gi nga xam ne moom moo bëgg si te bi muy bëgg fekk xale bi jàng ay waajuram di ko taxawu ci njàng mi te dañ ñoo ko yor ba mel ni mel ba ba bi mu ko gisee bëgg ko vraiment la moindre des choses bu fekkente ne bëggeel gi dëgg la au moins nga jàppale ko ci ci ci njàng mi ba mu àgg ci yenn niveau yi loolu ay matuwaay la yoo xam ne peut-être xëy na mm, du valable ci kër yëpp mais man am naa ci cas yoo xam ne fii ay élèves yu jigéen yu marié te kon ñu ngi continuer di jàng ñi seen i kër ñoo leen jël en charge eh, ñii dañu la bàyyi seen i kër waajur eh, maanaam dañ nàmpal ak maanaam am nañ doom te teewul ñu ngi jàng donc damaa bëgg wax ne question de volonté et d'organisation bu amee eh, mën naa maanaam njàng mi sëy bi mën naa am ba noppi njàng mi du dagg waaye daal ci te tënk moom phénomène bu ma metti la bonte ànd naa ci ndax ay doomu jullit lañ te jigéen moom bokk na ci li koy sange mooy am boroom kër eh, ñaare bi bu tollee fenn fi eh, li may faral di wax rek maanaam bu ma xool ak bu ma laal moom mën nga koo wax nit waaye bu ma bëgg moom mënoo koo wax donc ka jekk-jekk gis la moom bëggal la boppam ñëw dox si la wax yàlla mënoo ci dara eh, waaye dama bëgg wax ne loolu mën naa am ba pare fas gi am ba sëy sax am te du tey njàng mi njàng mi du dagg donc ma sañoon d'abord parents yi ñooy njëkk jël seeni i matuwaay ci vraiment bañ a dagg seen njàngum doom yi au moins ba am BFEM wala bac su ma naan moom moo gën lu mu gën a kawe gën mais au moins mu ànd yenn niveau yi waaye aussi boroom kër yi aussi bu yàlla dogalee ñu jël seeni soxna te fekkoon ne ñuy jàng bu ma mënee fexe ba mu bañ a dagg moom moom moo gën. waaw jërëjëf sëñ Amsa loolu leer na te am na solo ma leen di fàttali rek ba tey yéen a ngi topp seen site internet mourides point info ci seen émission yoonu ndaw. ñu ànd ci ak suñu invité suñu am sa jaxate suñu am suñu question bu mujj muy lan moo lay gën a neex si ndaw ak lan moo lay gën a metti si ndaw. Euh, jub jub moom euh, ñaar daal bëgg naa ko ci ndaw mooy nangoo sonn ak jub nangoo sonn mooy tax euh, say waajur ëllëg. nga feeñal yéene ci ne ci ñoom ne ñoo la jur ndax may faral di wax waaye jur moom kenn mënatu koo fay ba bu addunay tukki doo mënatu fay waajur ndax dafa am maa jëlal li ci yàlla dafa wax rek mm, ci fonk waajur waaye ñaar yi nga xam ne si waajur da koo defal doom ne li fi doom mënu koo fay waajur mënatu koo fay jàdd mooy jur ko ni mu la jure ak wutal ko aw tur ni mu la ko wutale li mënu ko defal ni la ko defal rek mënatoo koo fay waaye nag feeñal yéene mm, ci waajur doom ju ne man na ko feeñal yéene nag day fekk nga am man-man yi la ciy njëkk mooy jom jomi liggéey jomi nangoo sonn donc jom beneen jom mooy jub jub mooy tax euh, ci biir liggéey bi doo ci def ak tooñ doo ci mooy yàlla euh, doo ci jeng doo ci jubati ñaar yi moom ba xasee am ci ci ndaw ñaar doo nga ko mat ñaanal mooy gudd fan ak wér te xam ne dina ami xéewal mm, dina bokk ci kilifa yi réew mi moo tax man di ma gën a bëgg ci ndaw mooy jom ak su ma nee jom dugal naa bi ngay toll ci jàng nga def ci jom li muy metti metti ndax xam-xam da koy jox sa tuuti astaxfirullah da nga koy jox sa lépp mu doog laa jox tuutam nga xañ ko sa tuuti rek mu xañ la léppam donc coono bu rëy rëy rëy la laaj pour am xam-xam waaye boo doonee borom jom li muy metti metti di nga ko dégg bu dee danga nekk ci liggéey tamit di liggéey boo dee borom jom lu liggéey bi metti metti di di ko dégg. ñaareel bi doo jomba def dara li ma waxoon sax ne liggéey bépp liggéey bu dagan rek liggéey bu noobul la xeebuwul euh, doo bañ a def benn liggéey bu dagan jub gi nag mooy tax nga sellal ci liggéey bi ndax nit ab julit rawat na murit lu muy def lu ne yàlla wala njëkk a jiital ci loola ndax bu boobaa dara ji am talaa nga am ci jub waaye bu fekkente ne euh, maanaam liggéey bi moom moom la neex nga koy def sax ma jël koy exemple ci yow nga xam ne euh, sañ naa koo jël ci exemple liggéeyee nag sa yii nii bu fekkee dañu laa jox emploi temps heure booy xëy heure booy wàcc nga respecté loolu di ñëw heure euh, boo nekkee ci liggéey bi aussi nga bañ koo boole dara léeg-léeg nga bàyyi liggéey bi dem naa ni fekk wala dem jënd meer caaf fee wala nangam nangam peut-être ci heure liggéey bi la yooyu bokk na ci li maanaam sellal sa liggéey bokk na ci jub hmm, bala ngaa wàcc heure bi daa jot sëkk hmm, da caa bokk hmm, ñaareel ba mooy li may faral di wax rek respecté heure liggéey yi respecté jour yi nga jox. bu dee bu jour bi nga war a noppalu waaye respecté yi liggéey bi boo ci nekkee loolu dana tax loo ci am mu sell loo ci am mu barkeel loolu day valable ci lépp kon daal bëgg naa ci ndaw mu jub bëgg naa ci moom mu am jom safaan bi laa bañ ci moom rek ci gàttal. jërëjëf sëñ Amsa loolu leer na te am na solo yaakaar naa ñëpp déggandoo nañ ko sëñ Amsa sa kàddu yi ngay tàggatoo lan la. sant yàlla rek mm, ak euh, jégalu bu fekkente ni kàddu yi am na lu ci jubut euh, lu ci ñagas euh, jubloo na laybirante rek moo tax di la gërëm tamit ci honneur bi nga ñu defal ci njëkk ñoo dalal ndax ma ni nee nga mooy sa sa numéro bu njëkk kon leen di ñaanal ci barke Sëñ Tuubaa bu baax ni yàlla dafa leen ndam ak réussite bu rëy ci liggéey bi Ehm, ci yow ci ñi nga àndal ak ci fa ngeen di liggéeyee ngeen bokk ci ehm, ñi nga xam ne ehm, dañuy participer ci développement wu dëkk bi damay fa tudd le terroir et la patrie le terroir mooy fi ñu nekk Touba nga xam ne ñun télévision yi ñoo ko war a tabax yàlla yàlla yàlla du yàlla boole ci télévision Touba yi muy jaar ci seen loxo non seulement Touba waaye ñu ñu jógee ba nekk Touba nekk exemple bi ñu dem ba tabax Sénégal asalaamaaleykum. jërëjëf sëriñ Amsa ci kàddu bi nga xamante ne yëkkati ñu lay jaajëfal tamit ci nangu bi nga xamee ne nga ñu ko suñu invitation bokk ak ñun jotaay bi ñu la siy jaajëfal bu baax di jaajëfal tamit ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñu toppoon di ñu seetaan ci seen site internet mourides point info di jaajëfal tamit sama ñaari techniciens yi nga xam ne ñoom laa àndal sama ñaari xaadim yi bost ak ex di jaajëfal ñëpp rek den jox dig daje ci beneen émission ci beneen numéro ci seen site internet mourides point info incha allah